asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki téléspectateurs yu almouridiyyah tv ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di am mbégte dellusiwaat ak yéen fii ci seen émission as suba gu ne ci seen télévision Al Mouridiyyah di ko dooree kàddu yi ziyaare jëme ko ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem lu mu yéene ci liggéey Cheikhul Khadim mu matale ko te ñu ànd ko ak moom. di euh, sant mbokki téléspectateurs yi nga xam ne suba gu nekk ñuy ànd ak ñun ci as di am mbégte tey di dalal ci jataay bi Serigne Babacar Fall mu fas yéene ànd ak Serigne Mouhamadou Mourtala Seye ñu jàngat yi nga xamante ni moom lañ fi baaxu indi suba gu ne ci jataay bi sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Lamine ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp te nga xam aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ok sëñ Maodo Mourtala Sey wa rahmatullah kon nag ñu daal di euh, dugg rek ci bunt bu njëkk bi jëm ci alquranul karim bismillahi قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين sadaqallaahu alazim wa ballagha rasulu karim sëriñ Babacar ñu ngi jël ay nekk ci bopp suuratul muminuun muy soññe nag ci ay jikko ak melokaan yu ràññe ko ci ab jullit jërëjëf sëñ Lamine muy ay am solo comme ni nga ko leeralee rek muy ay yoo xam ne it ràññee na ki doon ab jullit ak ki ko doonul ndax nit ki lu mu doon dafa am ay mandarga yu wéral ne moom la doon moo tax saar wi tamit ni mu tijjee rek moom mooy li fes ci mbiram te daanaka boo xoolee ba ci biir noonu la ko ràññee ba mu jeex tàkk ni nga xamee ne daanaka tomb yu bari la waaye benn rek lañ ci jël mooy qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xaashiun mu mel ne kon ab jullit lay tax mu mën a bokk ci way gëm ña te ak pexem mat ba dara du ko yàq lolu moy fokk day meuna bok ci màndarga mu njëkk mi moy bok ci nga xamé seen gulli du doon ay tiaxan du doon ay neen gulli ragal yalla lay doon lolu it la koy tektale moy dañu wax ni gulli ñi nga xamné dañu ragal yalla moy ño xamné seen xol dana ragal ak sunu borom gi lolu dana ko tey ba euh, du doon yefi naafeqi biti waye yefi xol lay doon ba nga xamné nit ki mom ci jëm bopam Euh, soo ko soo ko nee jàkk xool ko di nga xam ne xool baa ngi lox waaye jëmm jaa ngi lox comme yi ko sëñ bu leerale ci biir Jawhar Nafis nga xam ne julli euh, ci julli ko ragal yàlla muy julli goo xam ne daanaka ku ko julliwut dañ naan ko amatu julli ci dëgg dëgg dëgg ak donte julli na ni ñuy jullee ndax yonente bi daneen laysa lil abdi min salaatihi illa ma aqal nit ki julleem lam ca bàyyi xel sunu borom rek rek rek teewlu ca sunu borom mooy li nga xam ne moom lañ ko ci fay am fu sëñ Tuubaa di leer ne li ràññale nit ki buy fo euh, mooy euh, ak bu fawut ci biiru julli mooy buy julli mu bàyyi xel ci li muy def maanaam mu mu ragal mu ragal ci yàlla. lu daal teewlu gi. lay ràññale euh, doonul kuy entraînement mooy mu bàyyi xel sunu borom yi ba tey waaye daanaka boo xoolee bu ragal yàlla gi amut. mbir yi daanaka duñ xaw a sore tut tuut tuut ndax yë yëkkati ko ak ak diglu waaye dane da bàyyi xel ne suñu borom soxlawul cër yi damm gi muy dagg ak sigg gi muy sigg waaye li mu soxla mooy xol bi ban tolluwaay la ko jox loolu euh, ci alxuraan yi boo xoolee ginnaaw julli moom daa màgg màggeen wu tax nit ñu baax ni bare bare daañ ci taxaw taxawaay boobu ndax suñu borom lu dul benn barab bi ci biir taaxa boo demee wax na Seydina Moussa lu mel noonu ne ko na ngay taxawal julli kon ñëw na ci taxawaayu julli ak fonk ko son borom fonk julli juromit it boo xoolee yonente bi sallallahu alaihi wasallam suñ borom gën na ko cee ci anam yu bare bare bare ci bir alquran waye ci julli gi ragal yalla gogo rek daanaka mooy moy tax ñi ñëk wax ci tembe tomb tay moy julli gi lan la mëna jural nit ki manam lan la ko mëna indil jeexita li nga xamni dal su teewloo ni ko aay bi waxe da ko am ci moom ko am ci moom nga xamni ne bi nak ndax na julli julli jurom mhm mu ngi mel ak dex bu ne ci sa keur nga dem ca laata bis bu set nga sang ci juroom yoon ak dex bu ne ci sa bundu keur bi nga sang ci juroom yoon ndax neenu na kay def lolé dana am ab tir wala tilim bu dess ci yaram ñom ñep ñu tontu ko ne ko dedet mu leen julli juroom mo gën mo raw ci nim koy defé ginnaw ak dex dex ndox mën kon lay setal nit ki ci ngeumam euh xolam julli juroom man na taxaw taxawaay bobu motax kuñu wax Bakar ibnu Abdillah doonoon jëmm ju baax nee na yow doomu aadama su la neexee booy dugg ci suñu borom nga dugg ci dul benn ndigal booy waxantee nga moom nga wut nga mujj wut benn ab tarjumaan ku lay firil li ngay wax nee na su boobaa boo ko woowee dana la wuyu loo ko laajit doo ko ñaanee dana la ko jox ñu laajte loolu noo koy amee mu ne da ngay jàpp ba seet dugg sa sa biir jàkk seetlal sa xol duggoo nee boo ànd boo boo duggee ci biir boo ko woowee mu wuyu la عائشة رضي الله عنه daana wax ngir wàccaay woo radiyallahu anha daana wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su masaana toog ñun ba waxtu julli jot bañ noddu day mel ne xamatuñu waxtaan bi da koy dagg ci saasi jug daanaka jëm ci julli ga kon xam na fi mu jëm fu mu ak na muy waajalee ab xolam ngir mën a teelu jëmmi jooje kooku nga xam ne ci la jëm muy loo xam ne suñu motulaa lu am solo la ndax julli lu bokkul rek ak sëgg yi sigg yi ak sujjóot yi ak rukkoo yi dañoo am lu ñu bëgg mu def ko ci xolu nit ki muy ragal yàlla goo xamante ni jeexital googu nag moo koy dimbali ci li ñuy wax lépp ni julli dina ko jariñ mu mën ko ko jariñ waa dëgg la sëñ Lamine ngi sant bu baax sëñ Babacar dafa mel ne li mu wax si julli ragal yàlla euh, am na solo lool ndax dafa mel ni aya alxuraan bi bi nga xamante ne yàlla sunu borom wàccee na ko loolu dafa am fesaa si jeexital ci saxaaba yi ndax ñu ngi nettali ne am na ñoo xam ne bu ñu daa julli day mel ni dañuy téen mel ne kuy xool ci asamaan si waaye bi aay bi wàccee rek ñu yëg ne war nañoo toroxlu war nañoo wàccee seen bopp war nañoo bàyyi xel yàlla suñu borom day mel ne kerse googu di leen dugg ba léegi ñuy sëgg di xool fa nga xam ne fa teg seen jëf kon day mel ne ak toroxlu googu day am solo loolu ci julli mooy bàyyi xel ne kila sant lii nga koy def moo la moom buur bu màgg la moo lay kàttanal moo lay mënal te danga dellu ci moom kon day mel ne loolu euh, ak nangu moomeel yàlla sunu borom ak nangu gi nga nangu doon ak jaamam nekk ci gannaam di toroxlu loolu muy bunt bu am solo boo xam li ci nekk nga war a teewlu tamit waxtu wu nekk ndax euh, soo ko seetloo ci buuru àddina yi rek ku mu woon nga ñëw taxaw ci kanamam war a seq ak moom day mel ne da nga contrôler sa bopp xool sa bopp ba doo ci boole dara ci bokkut rawatina nag ki nga xam ne moom dalaa moom dalaa bokkute kenn kon kooku sooy teewu ci kanamam mel na nga am audience ak moom sa teewlu dafa war a yokk lépp loo xam ne nekk ci xel la rawatina jaamu yàlla goo xam ne daf la ko daf la ko digal da la ko digal te loolu rek a tax mu sàkk la wàcce la si ko suuf ne da nga ko mhm. kon loolu day mel ne yow sab xel lépp loo xam ne àddina la da nga ci war a génne loolu nag day am ab jeexital ci xol jeexital ci xol bi mooy ni ko waxee léegi koo xam ne da am dex sa buntu kër soo xëyee da nga sangu su digg ba ci nga sanguwaat soo weesuwaat tudd sanguwaat daf ko juróomeen par bis loolu soo bàyyee xel ne koo xam ne de defoon na ci xolam jëf benn jëf ju ñaaw ci bis bi tey jii programme ko nangam lii de danaa ko def waaye xëy julli julli gi def li muy def ci moom mu ragal yàlla ko yàlla fàttaliku jàmm gu mu ko war a jàmm ko ne moo ko wax ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin bàyyi loolu fàttali ne moo ko wax ne ihdina siraatal mustaqim léegi mu far ko bàyyi diggante euh, suba gi ak tisbaar gi xelam nekk ci loolu waaye laata ñu mu koy jëfee waxtu julli jot mu fàttali ko waat lam jaayante ak yàlla sunu borom bàyyi loolu kon loolu moo tax kon julli gi moom dana ko génnee julli gi da koy sellal da koy laabal da koy génnee ci loo xam ne yàlla gërëmu ko santanewu ko ngir indi ko ci li nga xam ne mooy la mu gërëm moo tax xam ne benn borom xam-xam mag boo xam ne nee na képp koo xam ne ak julli génnee wut ci yow ak ragal yàlla ak bàyyi lu bon dëgg dëgg jullee goo waaye dëgg dëgg ku julli julli gi dana génne ci moom Euh, jëf ju bon ak jëf ju ñaaw muy euh, lu am solo loo xamante ni gis nañ ne gaa yu baax yëpp bu ñu daan wàcc dem ci julli Seydina Ibrahima wax nañ ne su musaana wàcc jëm ci julli soo musaana toll ci lu tolloog ñaari maayal lu jege ñaari kilomètre da ngay dégg xol bi ni muy dalee ci dënn bi ngir ragal yàlla suñu borom wax nañ ne Seydina Alioune diggante fi mu daan jàppee ak fi muy taxawee ci barabu jullikaay bi ñi ko xamoon mm. dañuy gis aw yaramam sax mel ni melokaan yi day soppiku ba bu nit ñi laajee mu ne leen xanaa xamu leen ki ma war a taxaw ci kanamam jàkkaarloog moom kon mu mel ni jeexital googu rek la aay bi di wax allazinum fi salaatim xaashiun jërëjëf sëñ Babacar ñu jàll ci ñaareelu bunt bi jëm ci xaddiisu bis bi Babacar ban xadis nga ñu indil tey moom it. jërëjëf sëñ Lamine xadis bi daanaka day gën a firndeel li nga xam ne moom la ñu wax léegi mu gën koo matalit ci wet jëlee nañ ci saxaabi bu tedd ñuy wax an abi saidin alxudri radiallahu anhu yaqulu samiatu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam yaqul yakunu xalfun baada sittina sanatan adaau salata wattabau alshahawati fa sawfa yalqawna gayya ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعلو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر وفاجر muy xadis boo xam ne moom it li nga xam ne moom lañ doon wax léegi daanaka da koy gën a dëgg ndax nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ginnaaw juróom-benn fukki at jàlle dana am ay wuutaa kon ñuy wuutu ñoo xam ne nañuy wuutu du rafet du baax la daloon njëkk ña dal leen dal ndax fii suñu borom naan fa xaalaf min baadihim xalfun adaa salaata wa tabax shahawaati fa sawfa yalqawna gayya loolu leer gën na ko leeral fii ndax dane su boobaa da nga gis ñoo xam dañuy sànku julli waaye topp bànneex yi danañ dajeeg benn barab boo xam ne nii ñii aw xur la ci biir jahannama ku ci mel ne Ubayda Abu Ubayda ak Abdullah ibn Mas'ud dane waadin fii jahannama baayirul qaxari xaar mu doon ab xur ci biir jahannama sori am xóotaay lool mu ne foofu ñoom boobaa foofu lañ jëm te dara waral ko lu topp guñ topp bànneex ak sàggane julli gi nee na ñeneen danañ nekkaat seen gannaaw ñoo xam ne nag dañuy jàng alxuraan waaye bu ñu koy jàng du weesu seen dënd baat maanaam du yegg ci seen xol daal maanaam duñ ko ragal yàlla danañ ko jàng nii nag nee na boobaa ñett danañ seq alxuraan suñu borom ci ku gëm yàlla te muy dëgg ak ku naafeeq ku sellu naafeeq ak ku saay-saay léegi ñu laaj ko ñu laaj ko ku ñuy wax Bachir Bachir dafa laaj euh, Walid ne ko ñett ñi nga wax léegi mooy ku gëm ki mu ne ko ku gëm ki ku gëm alxu ku gëm yàlla la gëm alxuraan jàpp ko melay jullit dañul ci moom naa naafeq bi da koy weddi kàccoor bi nag da koy dunde léegi muy lu am solo loo xam ne ci sànq julli ak ñee niñ daan taxawee julli nga xam ne ñaari tolluwaay yu sori la ci waxuma la bàyyi julli waaye ñoom euh, sax daanañ julli ba xool li julli gën a da gën a soxla ci ñoom muy seen xol dañ ko daan jox nga xam ne ci biir loolu sëriñ bi bari na fu bari fu leer ak fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral diggante li dox diggante jullit bi ak ako kéefër ndax nee na baynal abdi wa bayna shirki tarku salaati li dox diggante jaam bi ak ak bokkaale yàlla gu fees mooy bàyyi julli léegi mu mel ne kon ab darsu la boo xam ne suñ jamono ji tey war nañ ko mën a jëlaat bind bu baax a baax a baax ñoom lañ daan xantewu mooy julli ragal yàlla ba am ci tolluwaay yi waaye ñun laataa ngay àgg ci julli ragal yàlla maanaam doyadal gi ñu doyadal julli ci ñenn ñi loolu soo ko xoolee li nga xam ne xadis bi ci nii muy waxee nii ci ñi nga xam ne ñoo sànq julli te neen la tax ñu sànq julli ga mooy topp bànneex yi topp la leen neex ñenn ñi sax dañoo wax ne adan salaata du caagire dañoo bàyyi woon julli de waaye dañ daan wute waxtu dañ daan toog ba waxtu bu leen wuñ ko jekkoo doo ko julli ginnaaw bu ñu seen bakkan ba noppi. te mel na te te mel na ni jilli suñu Mourtala day mel ni suñu fàttalikoo rek <coughs> ab soññee boo xam ne yàggul Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér def ko. Mm. wax ne saa bu jàkka yi noddee. Mm. lu ñu jàpp nañ ko bàyyi. Mm. te julli ji jàkka yi. kon mel na ni moom gis na ni lii alxuraan wax. mu bëgguñu ñu ko fegal. di di di soññ ndax julli itam. Euh, firiwul ne da ngay def sooy soxla ba mu jeex rek. soo ko jox suñu borom li nga xamante ni moom la moom. dëgg la sëñ euh, ni ko waxee. julli dafa am waxtu te li ñu bëgg tamit mooy doomu aadama bi xam gi mu xam ne lii dañ ko ko digal te ki ko digal dafa am sañ-sañ ci moom digal ko ko di boromam te loolu moo tax ñu wàcce ko ci kaw suuf moo tax fu waxtu jotee kenn ku nekk la nga doon def ko war a bàyyi dem julli ji société Cheikh Sidi Muxtaar am na yoon yoon yoo xam ne saa yu wax dana wax ci loolu mooy di soññee julli juróom di soññee tamit di ko defee ci jàkk yi loolu yaakaar naa ne euh, suñ diine ji lu fekk baax la mooy jullig mbooloo jullig ci jàkk loolu nag am na ñoo xam ne négligé nañ ko waaye ñu bàyyi xel ne yàlla suñu borom ndax si suñ Babacar wax wax na ba tudd ñoo xam ne day néewal julli am ñoo xam ne ak naafeq la ngi jàng alxuraan te gëmuñu ko ñu ngi julli te loolu dëgg ci moom ci ñoom waaye loolu ñu bàyyi xel ne am na xeetu nit yoo xam ne alxuraan mu ngi leeral seen mbir suñ nekkee ci mbooloo wala suñ gisee aw nit day mën ne danañ wone yitte ju baree bari waaye yitte jooju ñuy wane fu nit ñi làqoo seen bët gisatul leen rek day mën a yitte yi dee na mbàpp daanu si suuf amatul nga xam ne kon moom nit ñi doon nit ñi fa nekk ngir ñu gis yitte jooju jonga tax ñu doon def waaye suñ gisul nit ñi rek defatuñu loolu muy firi nag kon julli gi nga xam ne tudd na ko mooy loo xam ne nga gis nit wala nga bañ a gis nit nga wéet wala nga bañ a wéet day loo xam ne da nga ko war a def ngir jëmmi yàlla sunu borom ndax du ko digle santaane ko ñu war koo def loolu tamit mu taamu bëgg ñu ngi ko def ci mbooloo def ko ci jàkka muy loo xam ne kon sa kem kattan da nga war a def ngir wéy loolu ndax mooy rafetal sa diine. alxuraan ji ñuy wax nii tamit li Babacar wax dëgg la am na ñoo xam ne du ñu ay jullit ay espion lañ agent secret ñu yónni leen ci ay sociétés yoo xam ne. dañoo gis seen diine na mel ñu bëgg a xam nan la ñuy doxalee bëgg leen a daaneel ñu yóbbu leen nee dem leen jàngi alxuraan ñu jàng alxuraan ba mën ko dem fa di wootewoo ak jullit ba egg sax ñu leen di jiitaloo ca barab ba te xamuñu leen te gëmuñu yàlla dem nañ ba jamono ba lañ bëgg bañ ko amee ba dem ñoo xam ne ndekete diw mii de doon ab jullit amaana sax dugg doon néegu góor René Kaye mii wax ne loolu dem na ko soo demee ci Irak ak euh, bi nga xamee lañ toll ci di taxawal seen yenn euh, mouvement de réformistes islamique yi britannique yi noonu lañ doon def du yéenu espion ñu dem ci loolu waaye su ñëwee dañuy mokkal alxuraan di ci dem kon mbir mi fi mu nekk mooy ragal yàlla loolu mooy mën a wutale kii nga xam ne mën naa taxaw tariku ba mu jeex tàkk te su fi jógee nekk ci leneen lu wuuteeg li yàlla santaane mboolem xeeti ñaawte ak fekk xeetu mbon mu nekk ci ak ki nga xam ne aaya bu mu tari daanaka du mën a dem yàlla mi ngi gën a teew ci moom muy gën a tiit muy gën a ragal euh, kon day mel am solo euh, foofu lu am solo suñu baabu kon ñu gis ne nag mm. day mel nii euh, koo xamante ni fii julli àgg allazinum fi salaatim xaasi woon mm. nga xamante ni mënoo tëb rek yegg fa day mel ni itam ku fa tëbul yegg fa it firiwul ni waroo uh, sawar ci julli ndax day mel ni escalier la yoo xamante ni da ngay dox ba mën faa àgg wër ndax lu ci nekk yoon la woow nit ki du tëb tëb yegg ca bopp ba mm-hmm. waaye faa mu aw ci mm-hmm. dañ dañ koy xamal ngir mu bañ a yoqe bañ a tay mm-hmm. bu doon ko gis boppam dana xam ne julleegul su su doon koo xam ne it am na yit ju rëy dana jéem a dox ndax ñoom fañ dox ba yegg fa ni du ci àgg ne ci benn bis la wala ñaari waxtu yu ni mel dañoo dox kem rek ni niñ niñ doxe waaye euh, la la tax seen dox àgg te rafet mooy dañoo sóobu te jàdduñ ba noppi yóbbaale ak ragal yàlla buy suuxat seenu ngëm bañ mën a yegg ci lu dul woon loolu moo tax mooy mu mënu cee ñàkk faaw nit ki mu jiital ko ndax loolu li li saxaloon julli rek mooy li yonent bi ne woon asalaatu imaadu diin faman tarakaha faqat kafar julli euh, julli mooy keno bi tee diina ku ko weddi rek daanaka ku ko bàyyi weddi na yàlla la la tax loolu it mën a am mooy yonent bi nee nee na li suñ la wax dafa am solo lool mooy am na ci ñoo xam ne bu ñu taxawee ci mbo kanamu nit danañ julli julli gu mat joxe ko rukkon yeeg yëpp waaye nee na kooku su yonent bi nee nan suñu borom waxante na moom ndax nee su fekkee nit la kook bu duggee ci néegam ba jàkkaarloo suñu borom ñoom rek ñoom ñaar rek mu ñaawal baral julli gi te loolu day am nee na su boobaa na ko wóor na doyadal na yàlla ci kanamam ngom fofu la waxee man ahsana haythu yarahu an-nasu wa asaaha haythu yakhlu fa tilka istihanatun istihana biha rabbahu azza wa jal ak doyadal gum doyadal yalla ndax da baye ba jakkal mom mom mi nga xamne ne moko taxone di julli mu baral julli ga baral gu mata mat delu ci ay soxlam te bam jakkal nit ñi da ko matal lol bañ japp ne ki xana sun borom jegoon na lo ci waxtu yu mu koy kon loolu euh, liñ ci bëgg rek moy nit ki bañ bañ di julli di yeruk nafiq ndax julli deug la man nañ ko defal lo ci kaw gi ni waaye la koy wuute mooy xol ya te loolu lu neex a ràññeet la ci nit nit ñi suñu borom ibbi seen bët damaa jëlal nag moom mi nga xam ne moo a àtte la muy euh, lu am solo bu ñu delloo rek dinañu gis ne barab yu bari Seexul Xadiim daf ci soññee ilhaamu salaam rek moo ci mujj di téere boo xamante ni day day soññ ñi nga xamante ni seen yitte àddina tax na amaana dinañu julli sax te waxtu wi teewul ngir gaaw mën a dellu ci seen itte wa ilaa bu ñuy julli ñuy gaaw gaaw goo xamante ni daf leen méngaleeg ginaar guy cof ngir ñàkk teewlu yi ñàkk matale sujjóot yi ñàkk matale rukkoo yi te xam ne loolu jataay la bu am solo boo xam nit ki da ciy jàkkaarloo ak suñu borom jërëjëf ñu jàll ci ñetteelu bunt bi jëm ci xikma bis bi ciy ànd ak euh, Serigne Babacar Fall ba tey yan mooy xikma yi nga xam ne moom la ñu indi tey ci suba gi. jërëjëf sëñ Lamine tomb bi moo xaw a yaatu moo tax daanaka xikma bi lépp ñu tënk ko ci mm-hmm. euh, soññee ci wàllu julli. moom it sëñ Tuba daa am lu mu ci wax jàngale woon ko te mu ngi biir mañ ma xam noore ni mm-hmm. waaye ci mu ci njëlbeen bi muy téeméeri xët ak juróom fukk ak ñeent ci la ko waxee nee na alaamatul na euh, arbaatun mandargam naafiq ñeent la. Mm-hmm. بغض أهل العلم وبغض مجالسة العلماء وترك الصلاة في المساجد ومخالطة النساء نينا ما ندرك من نافق نينت لا بيتن جاك موي بان نيون خم خم نييتو و خم خم اك ديتو گستو دي جيجم بان توغالي جتاي واي خم ني تي سامونتي دمان باي جولي سي بير جاكاي اك دي جاخاسو جيجين ني سي مبيدي اك مارسي دادي واخ تي يقال النبي صلى الله عليه وسلم سن جوبا مو نتا الحديث بي مجمع النورين من اذا جعل تارك الصلاه يده في طعام يقطر بين اظفاره سم يجول في القصع فكل من اكل منها احترق قلبه نينا كي باي جولي انا ما نكو باي ليبم كوكو دوي دغم دوي دول جولي نين دا نكو جورال بو جيلي لوخوم دوجال ندبلي داي ام توكي جي وندي لو سي بير ندبلي كوكو كوكو جيفاني كو رك صاب خول داي لاك ومن احترق قلبه قصر ku ab xolam lak day wow ci saasi wa man qasa qalbuhu fa naaru maskanuhu ku ab xolam wow sawara mooy dëkkuwaayam mu tegtaloo ci aaya bu yemi ndax fa wayl lil xaasiin xulubuhum laa di waxaat ci ginnaaw ba tey ci mañ maxoon norin daa ne ida aqbal taariku salaat ala taami irtaada attaamu fa yaqul allahuma allahuma manzi minni l baraka nee na su fekkee ki bàyyi julli dafa dëgmal am ndab rek ndab ndab lu ñuy xewlu nee na ca saas ndab li day lox lox gu méttee métte naan yàlla yàlla na nga diine barke bi ci man laata mu yegsi ngir ñàkk gam ñàkk it julli rek mo xati bi man ma noore ba ne bi neena man tabassama fi wajhi salat salaat kana ma hadama arkan arkan al képp kep ko xana retan nga muñ nga wala wané nga mbikté ci kanam ko baye julli neena mel nga ne mab nga kaabak sun borom ko muy negam bim ko tëjee mo ne wa man nakaxa binta taarikati salat qata ma baynahu wa bayna allah mu ne kep ko xamne rek dem nga ba denj jigen yo xam wora la jigen ji nga denj jaamu yalla mom julli waxu ci dara ak lu ci jëm waye nga denj ko ngir sa bakkanu rek na ni mom julli moom ak lu aju ci suñu borom sàmmantewoo ko nee na mel nga ne dog nga sa diggante ak sa borom ndéem am na lu fa newoon kon lii day wane ne sëñ Tuubaa julli lu mu fonkoon la waaye lu mu doon fonk lu la ndax wax nañ ne am nañ ñu ñu ko mas a gane si waa ci mbaa maak Kajoor waaye dana leen maa ngi leen di dénk julli juróom baa ma ko ay yoon yoon loolu it fàttaliwaat na yonente bi mu bëgg a làq asalaatu asalaatu ba doon wax ما لين دينك جلي ما لين دينك جلي تبغى نمشي جهر نفس أمن فنا وان مي عظيم الزن بليل ما أخري حتى تفوته بلا عظيم دري أسكن الليل بكر بري ومعا ما تكين عن دا باي جلي بام راو كرك عن دا تو بام بام بام فارك ميك بكر معا ما جدال دي مني سير الخدم بو لي إتيم وبي جديد السبيل بلا أهل العالمي نزافته كل من الله تهرد وسنته إن شاء ربي أبينه كن موم ginaaw li fi yonte bi saaw salaam bàyyi woon rek su ñu gisee mu soññee nii ci julli dañuy gis ne bokk na rek ci ponk yi nga xam ne mi ngi ciy liggéeyal wasilaamu tedd di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci loolaa bëggoon a ñëw mhm. euh, xam nga sëñ Tuubaa day koo xam ne dafa ñëw di yeesal su yeesal nag lépp loo xam ne ak ponk la boo xam ne ku ko bàyyi danga alku ku ko bàyyee da nga sori ngërëmal yàlla suñu borom ah. moom da koy yeesal indin ko indin woo xam ne ku ko xamut danga ko xam ko xamne dang ko don sagane càggante gi dana deñ ci yow mu yeesal ko ni mu ko waxe ni ci julli mu fesse ni so demee ci walu koor da nga fekk nu mel nonu la waxe ci mom bu kenn ku nek japp ne man day koor suma ko baye li wax ci julli ni la ko waxe fi so ci asaka lolou nga fay fekk lolou kon momo moy lan moy seigne touba ba ci ba ci japp mi nga xamanteni ci walu lab la aju ak lepp lo xamanteni ci la jëm bayiwu dara kon momo sëñ Tuubaa dafa ñew ngir yeesal diine ji yeesal ko yeesalin boo xam ne nag doo jàpp lii bàyyi lii waaye de loo xam ne ensemble la boo xam ne nit jëlandoo rek waaye doo ñëw ne bii laay fonk bii bii bàyyi bii wala bii kat mën naa ko jàppee nii wala bii ma jàppee ko naa déedéet kon lii sëñ Babacar wax mu dem ci wàllu julli sëñ Tuubaa mbooleem luy ibaadaat du ko mosu ñor ñoreen woo xam ne képp koo xam ne xam nañ ko di ko tudd moom sëñ Tuubaa yitte yooyu def na ko ci yow nañ bàyyi xel ne moom sëñ Tuubaa dañ ne laata ci saayir muy doon mag rek ba mu déggee waajuram di ko wax ne gaa yu baax yi dañ daa taxaw guddi rek eh, moom boobu la ko tàmbale di taxaw guddi te boobu amaana eh, eh, te kenn togg ko woon jëf kon loolu li muy firi mooy sëñ Tuubaa day yeesalkat boo xam ne ci li sëñ Babacar wax muy julli ci mbooloo ci jàkk loolu dafa am loo xam ne da koy def ci nit te loolu dafa am solo lool ndax muy lan su dee bis bu set danañ daje ci jàkka ji di julli ñun ñoo xam ne ñoo gën a jege kër ñoo bokk quartier bi kii dana jóge fii kii jóge fii ñu day julli danañ gisante danañ nemmi konte loolu dana jur cofeel ci biir julliti te yàlla suñu borom bëgg na ay jullit yoo xam ne dañoo ànd euh, di yërmante di soppante di ànd di jàmm yàlla suñu borom kon boo ko booloo ànd julli googu rek dana ko jur te cofeel googu dana jur yërmande yàlla sunu borom ajuma ju nekk danañ dajee mboolem dëkk bi fenn fu nekk ñu gën a jege yëpp dajee ci juma ñu julli xutba waxtaan ci lañ seq loolu di gën a boolewaat jullit ñi kon soo seetee hikma bi nga xam ne nekk na ci julli mbooloo weesu na ragal yàlla gi nga xam ne wax nañ ko mu koy def ci kenn ku nekk waaye day mel ne danañu dajale danañu boole dana def ak cofeel ci ñun ñu war koo def lii mujjee tamit mooy ñi nga xam ne day mel ne danañ sori loola bokkoon ci leen koy soril mooy jataay yi nga xam ne suñ naa wax ne mooy jataay way taxee di mooy jataay yoo xam ne suñ fa dajee waxi jigéen la ñuy wax waxi àddina la ñuy wax waxi lu ñu sori yàlla suñu borom la ñuy wax waaye duñ wax lenn loo xam ne loolu ni jégal lee la loolu mooy waral fu wax julli jotee kenn ku nekk da ngay ci la nga doon wax loo ci del suwaat waaye su doon day nekk ci jataay yi nga xam ne wuute nag jataay way taxee di jataay yi ñi nga xam ne yàlla suñu borom moo leen ñor fu kaddu allahu akbar jibee kenn ku nekk kàddu ga nga doon wax doo bàyyi mu daanu sax danga nga koy acc ngir xam ne yàlla sunu borom woote na yaakaar naa ne kon sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg yeesalkat bi mu doon wan nga wane ko fii ci euh, julli juróom mm-hmm. waaye war nañ ko mën a wane tamit ci koor mm-hmm. war ko wane ci natt asaka war ko wane ci mboolem xeetu ponk diine yi te ñu gis ne loolu lu sëñ Tuubaa ñaanoon suñu borom la bi muy sañ ci dëkkam bu tedd bii di Tuubaa mm-hmm. ku dem ci xasida Matlabul Fawzayni di nga ci fekk muy ñaan suñu borom wal tusbitan fihi jamaatan as asalawaatu xamsin daban ya hakim mu mel nak nag tay suñu borom wuy si na ko wuy si koo mel na ni tay ku doon lijeenti juma yi ñaata la mel na ni dina laaj ndox bu bare bare bari ak it ñu gis ne mom ci jëmmam nak taxawal na julli ci ay barab yo xamanteni ñu bari buñ fa yegge japp na ne war nañu mëna am mu mel euh ci bureau gouverneur ba wala ci géej gi wala ci barab yoo xamante ne ku fa ne sa xel dana ne ci leneen muy waneen kon moom lii muy soññee maanaam joxuñu ko mbooloo waaye def cee jiitu euh, loolu liggéey li bay bi bi gën a dëggaloo loolu mooy fi mu naan waa bu yooyu kullaha masajida mhm. yaa naa fi yan man laa yëkkoon saajida nga xam ne moom ay sëñ bi daanaka fa mu julli woon la wax yu ci bëree bëri fi ñu koy mandargaal mooy fa mu woon ba ci ñaar raakaay ndar gis nga ni ni kon loolu soññee la rek ci képp koo xam ne mhm. mooy sa wéeruwaay mooy sa yaakaar nga mhm. gën taxaw ci loolu te xam ne koo bëgg ku ne lam bëggoon lay tekkal ne bëgg ko dëgg na ca loolu da koy sax nekk ca mhm. waaye mënoo mënoo juyoo moom ci kaw boo ko bëggee mën a dëgg la jërëjëf ñu jàll ci beneen bunt bi ci topp jëm ci arminaat arminat kon dañ ci ànd ak euh, Serigne Mouhamadou Mourtala Sey ñuy euh, fàttaliku euh, ban bis tey ci wàllu taarix. waaw ci wàllu taarix bis bi ñu fàttaliku soriwut lool mm-hmm. mooy 21 mai 1989 mooy Égypte mi nga xam ne dañ ko génne woon mm-hmm. ci ligue arabe dañ ko cee boolewaat ci 1989 ci date 21 mai. léegi lan mooy sabab yi nga xamante nag moo taxoon ñu génnee Égypte ci ligue arabe. waaw ligue arabe xam nga dañ ko sosoon ci 22 mars 1945 bañ ko sosee tamit dañoo wax dama bëgg réew arab yi mën a booloo euh, seen xeex yi ñuy xeex ak seen xalaat yi ñuy xalaat mas mën a ànd seen xalaat ndax mbooloo di yërmande soo seetee réew yi ci bokkoon mooy Égypte Arabie Saoudite Irak Jordanie Liban Syrie ak Yémen du Nord mu juróom-ñaari réew ñoom ñooy base bi nga xam ne ñoo ko seqoon loolu nag bañ ko seqee euh, dand di dem ñu dem ba jëmmi jamono Égypte am accord de paix yum mu mhm. ak américains ak israéliens yi mhm. yu jëm ci wàllu Israël mhm. muy accord de Camp David loolu nag bi ko signé ñeneen réew yu mu bokkal ligue arabe kenn da ca àndut ñoom ñu bedd ko nag loolu moom duñ ci ànd léegi daal di dajee Irak ci Bagdad daal di defaat seen réunion bu mag boo xam ne bañ defee réunion bi dañ ne daal dañuy génnee Égypte ci ligue arabe te fekk na siège ligue arabe foofu la nekkoon Égypte bokkoon ci ñu ëpp doole ci ligue arabe waaye teewut ñu génnee ko ne ko moom dañ koy génnee du bokk ci ligue ñu génnee ko transfert de siège bi yóbbu ko baax Bagdad diggante bi nag euh, Anwar El Sadat jóge na fi Hosni Moubarak ñëw na itam jëpp nag moo doon fexe nu mën a duggaate ci biir pexe mu nekk def na ko réew mu nekk dem na fa ànd ak ñoom naxante diggante bi juróom-ñaar réew yokku na dem na ba mat ñaar fukki réew ak ñaar yoo xam ne réew arab yoo xam ne yëpp bokk nañ ci ba ci at bi dat bi nag lañ ko nangul mu dellusiwaat bokk ci nangul ko tamit euh, siège bi nga xam ne moom lañ transféré nekk baax daal ñu delloo ko keer muy euh, lu am solo ndax gis nañu sànq ci image yi bi ko Assane di accueillir ci sommet bi amoon ci Casablanca 1989 muy wane ne kon nag euh, taxawaay bi nga xamante ne Ligue arab yàgg nañ ko am ci lépp lu xamante ne xeex la muy diggante Yasser Arafat diggante roi Hussein ak ñu bari ci rawatina li nga xamante ni mooy cause waa Palestine euh, jërëjëf sëñ Mourtala Seye ci arminaat bu am solo boobu xanaa ñu fàttali ko rek yi nga xamante ni mooy tere yi wattandiku yi ak yi ñu digle ci bis bi laata ñuy ñëw ci point info bi ak euh, El Hadj Adama Mbodj waaw tey alxames la di ñaari fan si Shahban kon muy bis boo xam ne liñ ci taamu mooy euh, sol lu bees mm-hmm. taamu nañ ci tamit leweeku ci bis bi suba nag di Euh, ajjuma ñetti fan ñetti fan moom doo fatt kon ku nga xam ne tukki ci wala daloo ci wala ci fas ab wala àggale ci wala sanc si yooyu yëpp de loo xam ne dañ ko tere ci bis bi nga xam ne dafa fatt fan yi dëppoo ko euh, ajuma ji mhm. jërëjëf euh, sëñ Mamadou Moutalla Seye muy fàttali yoo xam suba gu ne bu ñu xëyee di ko jukkee ci xuratul ayni mu sëriñ Chouaïb bu ni ma koy fàttalee rek du ay tere araamal waaye tere wattandiku la jërëjëf ñu jàll kon ci tënku xabaar yi Assalamualaikum El Hadji Adama Mbodj. maaleykum salaam Serigne Mouhamadou Lamine Diouf ñoo ngi nuyu équipe Asaba bi waaye itam téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi seetaane fii ci Al TV. ñu ngi lay dalal jàmm ci Asaba xabaar yi ñu di ko tàmbalee. Euh, buuru Maroc wax na ni dikk na démb ci Ndakaaru waaw nit ki démb ci aéroport Léopold Sédar Senghor foofu le nag nga xamante ni euh, président de la république Macky Sall ak euh, Mohamed bun Abdallah Dionne waaye itam ay kilifa yu takk yu nekk ci Sénégal ñoom ñoo ko fa tertu Mohamed Sis nag dafa ñëw fii ci mim réew ngir amal fi ay liggéey waaye itam féddale li nga xamante ni moo di xaritoom ak Sénégal mm-hmm. moom nag su jógee ci fii ci Ndakaaru dina dem fële ca ca euh, Côte d'Ivoire dem ci Gabon waaye itam ci Guinée Bissau euh, téeméer ak fanweereelu juróomeelu woote Seydina Limam Laye ci kambari mu mel ni xalif bi euh, bu laayee ni soññ na woy politique yi ak syndicat yi ngir ñu wàññi tàngoor yi gën a juboo daal ba jàmm gën a am ci réew mi dëgg la mu doon waxtaanee rek li nga xamante ni moo di jàmm bu sax dakk ci àddina bi mu nekk li nga xamante ni Seydina Limaamu Laay moo ko doon jàngale loolu la euh, xalif général bi sukkandiku woote ci rek ngir Sénégal jàmm euh, sax fi dakk euh, li nga xamante ni nag moom la def mooy mu woo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kujje politique bi waaye itam syndicaliste yi ñuy sol lu weex wala ñuy jëfandikoo lu weex su ko defee rek mën a a wone li nga xamante ni moo di jàmm fii ci mim réew. Euh, lii nag di xabaar bu tiis muy accident bu doy waar boo xam ne ñi ngi ko nemmiku ci VDN ci pont foir bi. dëgg la ni ki démb la woon euh, mu am nag euh, lu toll ci ñaar fukki nit ñi nga xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu waaye ñett ñi nga xamante ni ñoom seen gaañu gaañu euh, fës na lool métti na trop loolu nag ci abenn accident bi nga xamante ni ci diggante ñaari bis tata woon ñu doon njëkkalante ci VDN bi ñoom nag bi ñu ñëwee ba yegg si foofu la foofu la ñu laalante benn car bi daanu foofule loolu moo nekkoon li nga xamante ni euh, moom moo nekkoon ci diggante ñaari kaaru ligne 4 yi yi nga xamante ni dañu doon dem foofu la ca Yoff euh, ñu ñëw ci xabaar bi gën a tey ci bis bi. li na a moom mooy tribinal régional bu Kaolack yi nga xamante ni rek dafa daan ay euh, ay ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, fële ca Kër Ayiba ak nekk ci Médina Sabax ñoom ñu attaqué woon rek sous préfecture ba ak gendarmerie ba ñu daan leen nag benn weeru kaso bi nga xamante ni duñu ko tëdd Mhm. ñu jëm ci agenda info bi yan xabaar la ñuy xaar tey ci wàllu xabaar yi. ministre bi yor wàllum fonction publique di Viviane Bampasi moom dina jiite cérémonie officielle niki tey ci alxames bi fële ca Ndakaaru ngir rek xool nan la ñuy tegee benn comité bu pilotage bi nga xamante ni ci ay études diagnostic la ñu koy teg ci wàllum service publique Euh, ñu jëm ci wàllu jaww ji fan la toll ak yan xayma lañ ci def ci wàllu tàngoor wi. Eh, tey ñu jàpp ne tàngoor bi dina tar lool ci Diourbel Kaolack ak Matam ñu nemmeeku fa ñeent fukki degré ak juróom ci suba si ci ngoon si nag ci Diourbel fukk ak juróom-ñeenti degré ca Kaolack ñaar fukki degré ca Matam ñaar fukk ak juróomi degré ca Podor ñu am fa ñeent fukki degré ak juróom ci suba si ñaar fukk ak ñett ci ngoon si ci Ziguinchor. ñeent fukki degré ci suba si ñaar fukk ak juróom ci ngoon si ci Saint-Louis euh, fanweer ak euh, ñaari degré ci suba si ñaar fukk ak benn ci ngoon si ci Tambacounda ñeent fukk ak ñeenti degré ak euh, ñaar fukk ak juróomi degré ca Ndakaaru ñaar fukk ak juróom ñetti degré ci suba si ñaar fukk ak ñett euh, ci ngoon si li nga xamante ni nag moo di jant bi fenk na ci bi juróom benn waxtu jotee ba toftal ñaar fukki simili ak juróom dina soosu juróom ñaari waxtu jotee ba toftal ñaar fukki simili ak juróom benn ñu mujjee ci tënku xabaar yi waxtu julli ci Touba ak li ko wër ci Touba ak li ko wër fajar bi julli nañ ko ci bi juróomi waxtu jotee ba toftal ñaar fukki simili ak juróom tisbaar bi dinañu ko waajal su benn waxtu jotee ba toftal fanweeri simili ak benn takusaan bi ñeenti waxtu su jotee ba toftal fanweeri simili ak benn timis bi juróom-ñaari waxtu su jotee ba toftal ñaar fukki simili ak juróom mbenn li nga xamante ni moo di gée bi dinañu ko waajal su juróom-ñetti waxtu jote ba teg ñeent fukki simili ak benn Euh, El Hadj Adama Mbodj wax nga sànq euh, benn accident bu doy waar ci VDN bi mhm. mu mel ni nag liñ ci nemmiku daal mooy desee sàmmonte ak euh, teggi ni dawal yi ak njëkkalante bi ci wàllu tali bi. waaw xam nga car tata yooyu fi ñu toll nii dafa bëri lool ñu bëgg ko remplacer ak car rapide yeeg car njaganjaay yi. Mhm. léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon dawal car njaganjaay yi di dawal car rapide yi mhm. ñoom ñoo dem. ci euh, tata yi di ko dawal mhm. te car rapide yooyu ak car njaganjaay yi ñi ko doon dawal dañ naan amuñ yenn qualité yi amuñ euh, euh, yenn compétence yi pour dawal mhm. dañu nekk ñu nga xamante ni amuñ seen comportement daal rafet wuñ ko mhm. loolu loolu nag xam naa moom moo bëgg a ñëw ci car tataay ndaxte ñoom soo seetloo soo duggee ci seen biir car yi car rapide car njaganjaay mhm. dañuy taxawaalu di parfois nga gis ay comportement yoo xamante ni vraiment duñ koy rafetlu di njëkkalante toujours ci kaw tali bi léegi nag ñooñu suñu demee ba jël tataay di ko dawal même affaire bi rek moom mooy répercuté ci car xam naa loolu moo waral loolu parce que ñaari kaar la ñaari kaar tata ligne car bi di njëkkalante mhm. waaw boo loolu moo waral accident dëgg la suñu motala mu mel ni nag euh, loolu bis bu ne ñu soññee ci wàllu euh, teggin ak yoon euh, mu mel ni daal gis nañ ne nit ñi duñ ko mën a defal seen bopp te yaakaar naa tali ku ciy daw am na responsabilité yoo xamante ni am na lenn lu mu laaj daal ci matuwaay yu ñu war a jël waaw am na responsabilité yu mu laaj te loolu neem yàlla dogal na nguur am na te nguur gi moom moo tëral aw yoon moom moo war a sàmmonteeg ba tax yoon woo waxtu nekk muy am ndax kat euh, mënuñoo bàyyi euh, ñoo xam ne nu leen neex lañuy defee boole kook amaana ñaaw làmmiñ boo xam ne kenn du mën a wax ak ñoom soo waxee benn ñun lu fukk ba pare nekk ci oto bi ñooy neex lañuy dawale te kenn mënta wax loolu bour mo wara a réglementer lolu nam ko réglementer nak mom moko xam nem ñepp do marché bolé jël seen cadeau jox ko ne ko dañoo bëgg nga assurer ñu suñu sécurité assurer suñu développement kon wax deug yalla bour bobu mom dafa amel population bi assainir lolu lijjanti ko ba lolu du am lolu yakar na né point bu am solo la ham xamné ne waroon cee mën a taxaw lijjantiwaat ko jërëjëf muy lu am solo lo xamné ne sax day wat débat wu ñu bari sax di wax ndax Sénégal Euh, jotul ci ñu def ni yenn réew yi ni ñuy def ay permis à point yoo xamante ni soo defee yenn njuumte ci tali bi ñu am poñ yu ñu la wàññil yoo xam ne bu jeexee da ngay delluwaat jàngiwaat day ni loolu yëpp ngir bëgg rek discipline ci tali bi ñu mën ci dellu si jërëjëf euh, dinañ ci dellu si waat allah ci xabaar yi ci yaatal ci suñu édition yi nga xamante ni ñooy ñëw ci français ak ci wolof ci seen télévision Al Mouridiyyah jërëjëf suñu aadama ñu lay sant ba euh, beneen yoon ñu dal kon ci bunt bi mujj jëm ci xasida ak bis bi الحمد لله jërëjëf euh, waa régie ci euh, fi nga xamante ni fa la ñu toll muy bunt bi mujj jëm ci xasida bis bi euh, sëriñ Babacar Fall gan mooy xasida gi nga xam ni moom nga ñu indil tey. jërëjëf sëñ Lamine xasida gi mooy xasida gi nga xam ne daanaka fi lañ mujjee bàyyee muy Arraaya ñu tàmbali woon ko mel ne mu xaw a desoon lu lu xaw a lu ma xaw a mat a leeral ci tomb bu njëkk bi rek ndax sëñ bi dafa leeral na xasida gi ndax Arraaya da ko bind bind lu ñuy tuddee miimiya ak euh, ak nuuniya nga xam ne loolu jublu gi mooy xasida gu daanee gu daaneele ra wala gu daaneele noonu mu tuddee ko diwaan yi nag saxaadaatul muridin nga xam ne yooyu yëpp daa mel ne Tuubaa la ko bindee ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn mu jiitu tukki géej mu ne nag xasida gi ki ko bind bind ko bind bindewu ko fu dul dëkkam waaye la tax mu bind ko mooy jaamu yàlla ak dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla googu mu wax ak dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa loolu dafa mel ne suuf si da ko laaj ndax moo ko tax a gàddaay jóge ci ay barab yu bari bari ay nit ñu xeetoo te teqali ko ay yéene suuf si nag dafa mel ne sëñ bi laataa mu koy fàggu dafa fàggoon ay nit ñu defar bi mu leen defaree ba noppi doog leen indi ci biir dëkk bi ndax nit dañoo wax ne boo boo wutee ab barab ñoŋal ko te ñoŋaloo ñu fay dëkk boo leen fa dugalee ci yàq ko la njëmee mu mel ne am na way yoo xam ne sëñ Moussa Ka da ko bindoon ci Touba di ci barke barkeel ci dëkk bi lenn la da koy tàmbalee arab sax daanale ko olof waaye ci waxin wi di nga xam ne ñoom suuf si suñu war warmaaloon la lu ci bëree bëri ñemewuñ ko woon tey ni ko ni ko suñu jamono ji ñemee tey ndax muy wax ne ala tiba tawraabin li Touba sa pàkk bi ndax ci Makka la am Madina bi tii bi buqaayi Touba taaba turbun ci réewi Kajoor wa réewi Bawol wasini turaabu barixi Ahmadu Bamba turbun kuraa yoo wér ku naan sab xol di diine non la ko tambale jël bayit yi ben benn dem na ba ka an diya buqaati ardi tuuba dafay suufas baqiixon ba day barab yi leer na dem banan wa yaa man liturbin khat dawaran yaram wo xamne ken du ne ruuga deena nga xamne kon li seigne djuba do xam yéen wa Madina mo a war mel ne xamul ni ki ngeen bokal Madina waye ñun it xaj na da ñu sañ wax loolu wax ñu ko suñu diggante seigne sëñ ndax mom mom lay yéeme ci suuf mel non euh ëmb ko mel non wayaa saadan li arwaaxin du fi nag ci suufu si réewi Touba bis bu dee bis bu diine nee na yéem naa texe ru yi nga xam ne ñoom lañ denc biir Touba suuf ci suuf Touba yéem naa seen texe ne wayaa fawzal muqiimi bi ardi Touba di xëy di xëy di ziyaare xa xabro faw faw noona ba tey ci dangay gis ne suuf si ñoom ñongaloon nañ ko waaye xam nañ àqam ndax ne mu ngi naan yéem naa texeg waa ji nekk Touba saa su muy xëy di ziyaare ji barab ba faw rek di waaye ñaari bayit di moy wone ne képp ku nekk ci dëkk bi war nga xam ni ngay doxee bu baax a baax a baax ndax suuf si jaamu yàlla mooy aslumlaay mooy cosaanam te bu waxi sëñ Tuubaa lépp lépp loola ci feeñ waaw te loolu yaakaar naa tarjumaanu raay sax bu ko xoolee tarjumaanu xasidi gi dëgg la dinañ gisee wax na ni ñëwu fi ludul ngir dundal sunna sunna yonent sallallahu alayhi wa ndax loolu la wax mooy illa li ibadati llahi subhanahu wa taala waaye sëñ sëñ saak ci waxam mi dajaa teg ne fa tuuba summa tuuba summa tuuba ñaxal na ñafay fay ziyaare di xaw ci ci sunna waaye fa waylun summa waylun summa waylun ñexal na ku weddi waa ji woote diine wa juraatu ayni rahmatihi shifaun ndoxam zam-zam la doyloo naa ko doy na nga xam ne ba tey mu ngi mu ngi mu ngi léemuwaale loolu waaye loolu dafa am ak alaaka lii ñu doon wax ci xasida sëñ Tuubaa gi ngir fonkoor fonkaat dëkk bi bu baax a baax ci li nga xamee ne moo taxoon sëñ fon moo taxoon sëñ sanj ko ci biir xasida gi ba duggee da ko tàmbalee wax ju yéeme ndax dane qalbi lahu fi itaabil jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuri jarraaru يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار dafa mel ni nit sun borom da koo booleeg ñaar yu xaw a safaanoo muy ab xol muy ruuga ak jëmm yaram wa ruugi dañoo wax ne ci malawul ala la bàyyi ko woon suuf si moom mooy jëmmi maanaam yaram yi bàyyi ko ci suuf si kon bii ca kaw la fu sore sore la bàyyi ko bii fu suufee suuf la bàyyi ko suñ borom maasee leen nag dajale ci jenn jëmm léegi moo tax ñu ne nit ki nag moom nekk ci seen diggante kii da koy toogloo kii da koy jugloo ndax kii daa bëgg delluwaat ci malaw lax la kii bëgg delluwaat ci baaxul suuf bi mu jóge woon mu sonn lool nag mel na ku jàq mel na amatul pexe ñu ne léegi looloo waral jëmmi nit ki saa su ne muy fexe ba diiwee na ruugoogu ba ruuga bañ di yàqu ndax am na ci ñoo xam ne sàggan nañ sàggan gu toll ne seen ruu moom la taxoon ñu sàkk ko muy jaamu yàlla ngir delluwaat ci malawal axla ruu ga sax fi ne ni jéemata delluwaat ci malawal axla ngir sàggane nga ko nit ki sàggane ba fi mu ne nii yonent bi da koo mujj not ci bànneex yi ak yu neex yi ndax ruu loolu dong moo ko mën a not ba gëm ba gumbaloo ko ba du mën a xam fu mu jëm am na benn waykat bu na wax mal maru illa ibnu tawa wala wet taxa ufuqa sama bi sallamin lam yaxludi di na nit ki mën nga ne daanaka doomi doomi alkane la rek ndax ci alkane lay dund lu mu yéeg-yéeg lu mu sori sori kaw yàgg-yàgg du fi sax waaye dana da ko da ko misaale ci ñaar mooy ruu gi ak yaram ne nit koo xam ne lu sori da koo ëmb kaw ak lu sori suuf da koo ëmb ne ñaari kooku du nekk jàmm shaxsun takannafahu suraya wasara wal gismu kuwina min xasisin xirmidi wa ruuxu kaana nusuuhu wa nuzuuhu min dalika almalai alaliyi al amjadi fa yaxinnu daaka li ardihi bi tasafulin wa yaxinnu daa li samaahi bi tasaudin wal mar'u baynahuma makhafata furqatin wa nawa fil muqimil muq'id nga xam nit ki daanaka saa su ne mu ngi ci diggante lu naan ko toogal ak jugal te musiba non la lay def da lay toog doom baabu la sa yeen saa nga tok yeen saa nga jug neena nak nit ki nak li tax mu meuna muccu moy mooy faw mu jël buub gi delo ko ci faw jël ci kisanam ndax ra ñu ci la ak jaamu yalla su duggé ci ji faatu man na man na man na bi euh, xawa dugal foofu ab soñe bax ndax mom waxna lo xamne euh ne la ci ne rek lo sori sori sori ci yoonu yalla do ñak mukk di tuub ak toroxlu sa diggante ak sa borom waaye du jaagne la ngay tuub day taxaw taxaway bu ko kenen defal mu yóbbu ko sawara ndax tolluwaay ñoo bokkut moo tax foofu mu nan sama xol sa soñe mu ngi yedd yaram wi ci tok gi mi tok ak top gi mi top banex té lolu sa soñe yaram wi lank melni ku ci gumba bañ caa jug nee sama xol bi mu ngi koy yedd ci loolu ci def gu mu koy def ba koo jëmee ci njub ba koo jëmee ci leer di ko ñoddi waaye yaram wi nee na të te xam ne ne xam-xam ak loolu moo koy dundal loolu nag waxoon nañ ko euh, keroog biñ biñ fi mujjee waaye dafa am solo ci euh, leeralaat ko dellusiwaat ci mooy dafa wax ci biir xasida gi moom tolluwaay bi mu bëgg gi mu bëgg yonente ba naan ko na nga ma na nga ma wërsëgal sëgal ne ma ñaan suñu borom ne ko kii nga xam dama ko bëgg bëgg bëgg ba fu ma ko tuddee sama cër yëpp daanaka day mel ne dootu fi nekk damaa bëgg nga may ma moom bëggoon naa ko bëggoon naa ko ziyaare ji lool waaye ba fi mu ne mënu mënu mënu ko koo ziyaare waaye dem na ba wax ne ndax sëñ bi ku gaaw dox la ku gaaw dox la ci booy topp mbind ni muy binde ndax dem na ba naan razaqtani alxajja tayyan anta muqtadirun maal jiwaari wa zawrin fii kay allahu mu mel ne kon dëkkaale ga ak ziyaare ji yonante moom mujj na ko am ba ne ko mujj naa dëkkaale moom loolu it li koy tegtale ci biir mbindam bari na lool mooy lu mu wax ne moom xolam ba tey ci njëlbeenu xasida gi xol bi li mu wax ne sama xol du déng-déng mukk jëm ci lu mooy yàlla sama bi sama jëm musta jéng musta jéng ba ko sun borom sàkke bi jëm ci ak mooy lam yataraddad kalkal yi walam yemil jismi ila maasiyatin walam amil loolu it tegtal la ci ne moom sëñ Tuubaa ab xolam li muy jubloo wax fi xasida gi mooy tolluwaay bi ñu doon wax léegi waaye lam arxu maalam yi fi du yi fi di daanaka wane na ne moom ku ku ku ku ku ku sorif tolluwaay la loolu kon di tegtale ne xasida xal bi loxo fi entaat gis mi takk takkaraaru lim ci indi ci ay mbir moom bari na lool ndax bokk na ci boo soppee jëm te muy dëgg ci yow li ñu doon wax léegi mooy boo ko soppee faw la ngay topp qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yéen di sartu bëgg ngeen bëgg yàlla su dee dëgg ci yenn mooy ngeen topp man ndax man am ndawam la hmm. sëñ bi nag daal di tegtalu ñaari bayit yoo xam ne waxu ko dafa am ko ko waxoon kay ci son waaye nee na xam naa ne waaye jooju man rek lay soñ zur man tuhibbu wa in chattat bi ka daara waxaala min doonihi sahlun aw aal nga xam ne loolu lu yéeme la ci lépp lu dox sa diggante ka nga sopp sab xol ak si yitte war na koo bëtt jàll yegg ca moom dara du ko téye léegi loolu lépp def na ko ci biir xasida gi wane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tolluwaayam wajjahtu wajhi ilayka al yawma murtajian kaw nii la dayka kaman xajju wa man zaaru loolu ñaan la waaye bay bi ñu wax léegi wane na ne suñu borom nangul na ko lan ko ñaanal ndax wërsëgaleen gu dëkkaale ga ak aj ga muy euh, lu am solo loo xamante ne si laa gis nañ ne raaya ni sëñ Babacar euh, tàmbalee ñu gis sëriñ bi diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa muy koo xam ne ci seen diggante rek la nekk ndax ne ko sëñ bi waxee woon nee na saa su ne day ñaan yàlla mu saxal cofeelam ci moom yàlla saxal cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal tusbitan hubbaka fii fuaadi wa hubba xayri xalqi sëñ Babacar ni mu tàmbalee si tarjumaan ji rek mu wane taxawaayu Touba mi nga xam ne moom la war a am euh, wane tamit euh, sëñ Touba suy wax du tudd xolom xolam du tudd ak Touba ak léppam loolu noonu lañ ko war a déggee loolu dafa am solo lool ndax ñoo xam ne sëñ Abdou Lahad Mbacké mi doon xamal ne yàlla sunu borom ba ñu may sëñ Touba dëkk mu tedd bi du Touba li ko xamal mooy ñaari barab na gëna fonk ci ko suuf muy makka ak madina bi ma war a ñetteel teg loxo fo moko ñaané rek ma defal la ko kon lolu ñu xamne kon tuba de coupe yalla suñu borom la makka ak madina fañ rang fofu la rang tamit de coupe yalla suñu borom muy ben ñaaral ba tamit mom señ tuuba mi nga xamne mom lañu yaakar ne ko ne fi ñaaré nit mëna wacc ñu indil ko ko mu nañ ma ko sa amna tabja ba lamu ci mënta def wa suuf ci dana ko fa defal kon la nga tudd si suuf ci suufu Madinatu Munawara ne ëmbut lu gën euh, euh, suuf su mel noonu nu mën a ëmbee lu mel na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ ni suuf su mel noonu am na ko tedd ku mu ëmb waaye yëmu ci loolu nag Sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne suuf si ëmb na la rek am na taxe goo xam ne yow fàggul na la ko ba noppi yaakaar kon su tedd nga dëkk bi moom kenn waxalewu ko moom Sëñ Tuubaa mu dem ba ak ci ñaan yàlla suñu borom ne ko mu def képp koo xam ne bugg ngaa dem màkk te mënoo faa dem yéene ñu mat na sëkk waaye kàttan gi bu tax nga mën da amoo ko mu defal la lambo nga néew doole akuk tële akuk tële mu defal nga am yool ak tuyaaba koo xam ne dem na fa kon loolu lépp lu muy firi mooy taxawaay dëkk bi kon nag nañ fa war a nekkee war nañ ko bàyyi xel bu baax rawatina borom ba mu koy def dana sefeet bàyyi warab bi xumb yëpp ñëw fii ngir lan ngir dundal diine rek kon wàllu woowu yaakaar naa ne matal na sëkk ci tarjumaan yi mm-hmm. fi nga wax nag bu tudd xol euh, kii asafla ruu ak yaram ñu boole leen foofu tamit dafa am lu Sëñ Abdou Lahad Mbacke wax lu am solo mooy yàlla dafa bind ñaar bind ñett dafa bind xel bind bànneex daal bind nit bind malaaka bind bàyyi ma fab xel rek jox malaaka fab bànneex rek jox bàyyi ma waaye nit nag mu jël euh, bànneex jël tamit xel jox ko léegi nag nit ki su toppee xel mi rek day yéeg ba dem tax taxawaayu malaaka waaye su toppee bànneex ba tamit day wàcc ba gën suuf suufe bàyyi ma nit ki nag nekk ci diggante boobu nag mu mel ne ab xuloo di am waxtu nekk nit ki mu ngi xuloog boppam ngir bëgg a yéeg bii rek doo yéeg bii nga day wàcc sëñ Tuubaa nag moom su ñëwee tàmbalee waxam mel ne li tuub di wane ne yaram wi néew na doole waaye xol bi àgg na fu nekk loolu dañoo bëgg a dimbale rek waaye xam na ne sëñ Tuubaa foofu fépp nekku fa ndax ma ak taxawaayam ak jàmm yàlla am na ko foo xam ne lépp loo xam ne wax na ko ci wàllu woowu rek teggin ñaan yàlla suñu borom la ak it technique si yoon woo xam ne moo tax ñu mun cee dimbali moo tax ma jàpp mu tàmbale ko noonu wane ab xolam nam fa mu toll ak moom yéeneem fa fa mu nekk euh, xam naa raay day xasida koo xamante ni yaakaar naa ni ñuy def miimee gis bul ak yooyu dañuy fexe saa bu ñu amee jataay rek jël ci ab diggante ndax lépp dafa dugg ci siira dugg ci tagg dugg ci ay fànn yu am solo yoo xamante ni dox na diggante yoon bi sallallahu alayhi ak Cheikhul euh, Khadim ñuy sant bu baax euh, sëñ Babacar Fall ci jataay bi ak bunt yi nga xamante indi na ko fii ak Serigne Mouhamadou Mourtala Seye mi ñu àndaloon ci suba ak léegi di leen sant bokki téléspectateurs yi ak techniciens yi ak ñëpp di leen dig daje incha allah gaaw ndax xam nga ni ajjuma ñi ngi ko jagle as sabaax bu waa desk arab suba incha allah ci waxtu yi ñoo fi war ñëw ngir ànd ak euh, bokki téléspectateurs yi ci assaba di leen sant di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله